ngeen jëf mbokki wasaare làmb wasaare TV ñoo leen di leen daan nuyoo di leen jox bu baax a baax mbokki bitim réew ak ñi nga xamante ñoo nekk ci réew mi ñoo leen jaajëfal bu baax a baax ñi nga xamante dañoo safoo wasaare làmb euh, ñoo nga xamante dañoo connecté benn yoon te déconnecté ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ñi nga xamante dañoo tëdd ci lalu hôpital yi ñoo ngi leen di ñaanal tan ñi nga xamante caabi di leen féete gannaaw yàlla euh, génne leen foofu ñu nekk ak fëgg seen bopp bu baax a baax fëgg sama bopp cameraman bi nga xamante ni fan yëpp daa xaw na tooy waaye xam naa ne soxna na sekk xaw a sooy rek gannaaw loolu ñu bàyyi Xaadim Njaay mu nuyoo Xaadim Njaay sant yàlla julli ci bi sant suñu ñaari waajur eh, di nuyu monde làmb di bépp waaw di géej gi ba dëkk di nuyu waa Sénégal yëpp waaw jërëjëf Xaadim Njaay ñu gëj la gis ci làmb su ma juumul sa combat yaag Forza ba léegi waaw sama combat ak Forza ba léegi de laa gëj ci làmb ji mais nag du ji man waaw ah, du ci man parce que man ci li ma war a ne maa ngi ci nekk ba léegi waaw ah, li ma war a ne maa ngi ci nekk ba léegi waaw ah, promoteurs yi nag ñu ngi ñëw ndànk-ndànk ñu waxee bàyyiwaat mais jusqu'à présent daal yàlla def na amaguñu ko combat ba léegi. Euh, boobaak léegi su ma juumul def na trois ans wala quatre ans bi nga gëjee ci làmb. quatre def na quatre ans def na quatre ans. mais xëj na loolu la yàlla dogal. aussi làmb mu toog quatre ans bëriwul est-ce que ba léegi mu ngi ci biir làmb. si Ama Sène dal na fi dal na fi keneen ak keneen mais Ama Sène bi mu ñëwaat ñëwaatee dafa lancé waat amaat amaat ba tey fii ko yàlla andi nii tey mu ñëwaat fi waaw loolu nag laay ñaan yàlla mu dal ma rek. ñu bàyyi nag dañ na woon Khadim Ndiaye est-ce que découragé wu sax bàyyi parce que gëj nañ koo gis et puis ko gis ci mu dëkkante wala ñu gis ko ñu mu feeñ ci ci télé yeeg ci réseaux sociaux yi kenn gisul la waaw parce que <laughs> làmb ji moo ubbiwul rek mais man ku ma xam-xam ne man damay damay neexal làmb waaw maa ngi samay entraînement kom ni ma ko daan defee bàyyiwuma ci dara arrière ma découragé wu ma pourquoi may découragé xale mu ndaw laa maa ngi ca la ma nekk ba léegi rek ba yàlla def may am combat rek. fan yi doon naa fi dégg ñuy dox say combat sa combat ak lañ doon dox. waaw tout récemment rek doxoon nañ sama combat ak euh, suma juumul la mburu waay bi mu tuddati waay euh, ma faal sëy ma faal sëy la xaw ma kii Aline Seye junior bi doon numéro 2 waaw bi doon bëre ñàkk jariñu Sam production mi moo nu ñun ñaar ñëpp man ma oowee laaka na pare na waaye ci moom daal la desoon ba léegi ba fi may wax ak yow yéeyu ci yàbb waaw damaa ngi ko gis ci télé bi toog na fekk ay Malick Thiandoum ak di wax rek naan gars yi ñoo may daw xam nga li ñuy wax ak li am à fond bokkul waaw ñu bàyyi naxante bi tey wax dëgg te yàlla tax waaw jox nañ ko fi sama combat ak moom mënoon na kaa jël ba tey fii may wax ak yow naka jël ñu bëre. mais Alioune Seye xam nga ne dafa mer parce que mu waaj komba ba ci bisub làmb ji làmb ji demee noonu yow nga toog quatre ans bëriwuloo ñu jox la Alioune Seye nga ne Alioune na bàyyi daw yu muy daw. ah kooku merul merul. <laughs> bu meroon kay ban ko joxee ban ban ma ko joxee la may jël. mais ñu jox ko combat te waaye mun naa maa ngi xaar keek di xaar kële bëgg dajale mbokkaam yi nga xamante ni dee nañ tuur ay cent baadu ñooñ la bëgg a laaj ba pare. waaw xañ na ñi nekk ci biir bàmmeel bi la bëgg a laaj comme moom day dajale mbokk gi rek. waaw heure bu paree rek man pare naa. Ah. Hmm. fi laa bu la andiloon avance bi baadu ko tas ko séddale ko ci dëkk bi. buñ léegi ma tasaare ko fii ci room bi fii may toog nii. Ah. waaw jox ci ñi ma ci war a jox préparé. mais man bi ñu jógee géej waaye damaa dégg ñu duggaat Pikine ah, jox la fa ki nga xamante ni moom tamit suma ma toog na fi ñetti at yoo xamante ni avance moo ngi wër kenn nangu ko jël. waaw Cobra. doon nan moo waxee waxam ne mais nag ci promoteur bi la du ci moom promoteur bi moo ne woon sa diggante Forza sa digganteeg euh, Cobra mais jusqu'à présent woowaatuma daal waxaatuma dara. yow nangu nga jël Cobra. ñëpp dama fee bàyyi kenn. Khadim Ndiaye ci la nga jóge métti woon na Cobra nga xamante ni mbàccum gerte yi moom foo foo foo taxaw dalay dal. bien. ak nga gëjee ci làmb nii est-ce que doo woon xool lu xaw a nooy nga dugg ci xaw am noo def ba noppi doo génnaat ñoom ñoo la gën a xam kuy Xaadim Njaay ñoom ñooñu. Hmm. xam nan ma ah, doon wax. waaw. yow lu Forza doon <laughs> ak lu Malick ñaa doon wax. man daje naa daanaan yëpp laa dajal. waaw daanaan yëpp. mais man làmba dama ko jàng. waaw ah, damaa jàngal làmb làmbantu ma de. dama jàng ni ñuy xeexe jàng ni ñuy dóore lépp laa jàng bàyyiwuma benn détail bàyyiwuma ko. mais lan moo waral toogaay bu yàgg bi nga jëm jóge ci kombaay ak Forza toogaat ñeenti at kenn gisu la. waa ci promoteur yi la rek ci promoteur yi la. ko ci làmba ñi moom ku wax dëgg te yàlla tax xam nga ne làmb ñi moom nam doon doxee doxetu ko waaw parce que promoteur yi fi nekkoon nekkatuñ fi yàlla def na sax ñu ngi commencé di ñëwaat ndànk-ndànk. mais ña fa nekkoon ñoo fi nekkatul te ñi fi ne actuellement seen doole bariwul waaw. mais tamit loolu su amee est-ce que yéen ñi nga xamante ni yeneen acteur yi est-ce que euh, laajul ngeen wàññi kase yi wala boo xool nu ngeen di waxtaanee mën a mën a mën a mën a gën a déggoog ñoom affaire yi gën a yomb seen diggante. non man moom man ay affaire yi kase yooyu man man moom maay bàyyi defal yàlla man. man sama waxaale ma dul deux minutes laajal promoteur laajal Gaston wala nga laaj nit ñi ko man du ma waxaale deux minutes waaw parce que sport la waaw doole ju du la fi xaar at yi du la fi xaar waaw da ngay def li ngay def bu pare bu jeexee jeex na waaw moo tax bu fi nekk di parce que at bu la xësa raw waaw at moomu jàll na mënoo kaa amaat moo tax boo ci nekkee nekk ci rek moo tax man samay waxaale du mat deux minutes ma ne la parce que bëre bi moo ma intéressé waaw ak samay supporters yi nga xam ne ñu ngi sama ginnaaw parce que man opté wu ma làmb rek dama yor beneen métier bu bokkul ak làmb waaw jëluma sama moyen yëpp def ko ci làmb non loolu moo tax man boo ñëwee rek deux minutes dañuy jubboo ma dem préparer sama combat. mais su su su ma su ma weesoo ñaar ñi nga ma limal Xaadim Ndiaye ñan ñoo nekk ci xelam wala boog ñan bëgg ba jamono ji bu weesoo kii di Alioune Seye Alioune Seye 2 ak euh, Cobra. Yékini ngi fi Yékini Junior. Yékini loo loo loolu njàndee mu ngi fi waaw. ak ñeneen ak ñe ñooñu ngay gis ñëpp ay tapet lan. kan Yékini Junior. ñooñu ñëpp. déet Yékini Junior gisoo ko ba ki démb ni mu def ki nga xam te ne moom moo moo Modou Anta toll nii Modou Anta nii la toll man xam nañ ma bu baax Yékini moomu noonu. nekkoon naa seen écurie wala nga laaj écurie numéro un man maay kan écurie numéro un ngay laaj. est-ce que est-ce que est-ce que safara boobu nekkoon ci Xaadim Njaay taxaw dëggal boppam ah est-ce que loolu moo ngi fi ba léegi tamit. tey la waa la gën a aay parce que ñun fi mu ne nii dañoo yor ay saal yor ñoo xamante dañuy def armation dañuy def xanaa gisoo rëg-rëg ni mu def waa ji. loolu dinaa ci ñëw rëg moom dinaa ci ñëw. dañoo yor fii ay saal yor ay techniciens yoo xamante ni lépp lañ ñuy jàngal waaw bu làmb ji ibbiwaatee di nga xam ne waa caaray moom ah dinañ jëlaat seen place ci làmb ji. waaw fi nag moom yéen moom dañ leen fàtte ci làmb parce que boo nee bàyyi ma njoon wax rëgg rëgg sax xanaa moo xaw ay amet dem ak ñoo ñëpp léegi man daal caaray man man dama yaakaar daal da ngeen gën a féetewoo ci géej gi bàyyi làmb. déedéet ñu ngi liggéey de. ñu ngi liggéey di préparé wu te actuellement écurie bi benn écurie la caare gépp amatul kaveer amul gëm sa bopp amul dara. xanaa loolu lu bees la. lu bees la lu ñu préparé loolu laa lay wax nii li ma lay wax nag ni ñu làq moo ëpp. nan ngeen bàyyi ma gëm sa bopp ah ñoom Reug Reug Ahmed Deme Khadim Ndiaye Ousmane Diop maanaam lépp daal di ngeen ko boole léegi. benn écurie la léegi. écurie Thiaroye sur Mer la. amatul gëm sa bopp amatul dara ñëpp benn la. am nañ suñuy technicien changé waat nañ daal révisé lañ defaat defaraat écurie bi defaraat toogaay yi yàlla na ñu yàlla may tal ak fekke rek corona bi jóge fi wala làmba ji ibbi ñu xool. mais est loolu yomboon na. parce que euh, ay champion yu bëri ku ci nekk créé sa équipe ngeen dem toog waxtaan ba bëgg a boole lép est-ce loolu yomboon na bu ngeen ko defee est-ce que tamit dina yomb ay mbër yoo xamante ni nii bokkuñu woon fu ñu nekk léegi ñu booloo leen est-ce loolu dina yomb. loolu erreur la woon rek loolu jafewul parce que ñun fii ñoo bokk suñuy maam bokk suñuy baay bokkul kii jógewul fële kii jóge fële kii déedéet ñuy maam mi mel na la fii jaare yi Ousmane Diop fii la dëkk mu ngi ci biir kër gi bàyyi ma njoon a ngi si ginnaaw isaapu yee ngi nii ci géej kon loolu ta partagé ay xaju fi moo tax bu ñu xoolaatee xoolaat suñu bopp xam na ñun fi ñu teg suñu tànk baaxul ci lañ waxtaanaat suñu biir ñun mbëri kase boole ñu ci ma samba boole ñu ci ma demba parce que nanga moytu ki lay may 1000 francs te naan laan moytul ma diw waaw kooku dalay yàqal waaw bu ñu dajaloowee nag ñun ñëpp waxtaan suñu biir ba xam ne lii mooy moo ñuy avancer euh, ci lañ defarwaat daal boole lépp nekk benn fi mu ne nii pare nañ daal pare nañ ñun ñëpp ku am combat ñëpp a lay attaqué waaw jàppale sa combat ba yàlla may la ndam ba koroog ñuy bàyyi làmb loolu daal lañ fas yéene. mais loolu est-ce que est dina yomb parce que yéen tamit bu ngeen boolee ñëpp ku ci nekk équipe bu nekk amoon na tête de su ngeen leen boolee est-ce que euh, foofu tête de file mën na faa am ci biir équipe bi. waaw tête de bi kay Xaadim Njaay ku mag rek yaa jiitu. donte Ousmane Diop moo mag moo mag Xaadim euh, Ndiaye mais dañ ko ginnaaw moom moom lañ jiital Xaadim Ndiaye moom lañ jiital fii moom te dëkk fii écurie Thiaroye. Ndiaye bàyyeegul ba léegi. non bàyyee bàyyi euh, maanaam ay atam jeex na ci làmba mais maanaam moom moom la ñuy def moom la ñuy jiital moom la ñuy def tête de parce que ay atam jeex na mais am na lu mu dese waaw parce que bu ñu demee géej moom mooy mooy contacté booy di leen defal physique di leen entraîner di leen wax li ñu war a def yëpp. mbaa bu ñu yokkaatee âge du dellusiwaat. non non non non non moom xam nga xaarim moom danaan tane ko wér rek xam nga. bëri woon ay blessure waaw ba yàlla def daal finalement bàyyi na làmb Ousmane Diop aussi bàyyi na làmb léegi daal ñun xale yi ñun ñoo fi des waaw ak suñuy rak waaw di ñaan yàlla jàppale ñu daal ñu amaat force. ñu ñëwaati ci làmb ji. démb tout récemment fi gis ki nga xamante ni nii mooy doomu caare muy rëgg dem ba États-Unis don def foofu MMA njëkk na def premier combat am yàlla may ko ci ndam euh, deuxième combat mu am Alain Ngalani euh, yàlla dogal ci mu am ci ndam euh, trajet boobu muy def naka nga gisee. bii di ñëw day amaat combat. day day bii di ñëw nii day amaat ndam. te combat boobu du yomb de. non gëm-gëm la rëg-rëg rek <laughs> rëg-rëg naa ko ci lu ne. ñu ci bàyyi dañ ne woon bii mën na cee génn mais ba ca des moo leen xaw a jaaxal. noo xam nga lu tax gaay yi di waxuma la rëg rëg rek. mais gars yi bëri bi am ci senegal fii moo amul ci àdduna parce que boo xoolee Allé Ngalandou moom fi ko rëg rëg gañee mooy fu mu ko njëkkee dóor tàng ni caxabal ko mu jaaxaan. dama koo gis rek ma ne Mbappa delsi na. voilà xam nga mu jaaxaan. mu du ngay dóor ay di ko dóor ay uppercut léegi mu forcé pour jógaat mu laalaat beneen tànk ba waaw xam nga bëri bi am Sénégal amul fenn ci àdduna waaw moo tax ma ne bii di ñëw nii day gañewaat waaw parce que parce que bëri bi am Sénégal amul fenn Sénégal rek la am kon na ci ñeneen ak ñeneen dugg waaw nañ gëm suñu bopp xam ne affaire bi du dara li ko wutaleeg làmb mooy tëddaay bi rek moo ak tànk bi jóg moo ko wutaleeg làmb mais comme làmbale rek parce que dóorante moom làmb dóorante la waaw kon voilà c'est comme làmba rek moo tax booy nañu dem jàngi armation dem dugg ci sport boobu baax na trop. Hmm. Euh, su ma ñëwee ci làmb yi fi jot am parce que am na combat yoo xamante ni woon nañ bokk na ci yi nga xamante ni mooy dekkal euh, saison bii ñu nekk mu ci diggante Modou Lo ak Ama bale euh, noo gisee boobu combat. Eh, combat bu tar Modou Lo Ama balde ndaay dina tar lool parce que Ama Baldé xam naa ne bu arbitre sifflé ci kaw Modou Lo la jëm loolu moom bu ko kenn werante moom. est ñëw. day ñëw day ñëw mais man daal lam fay fekk man mooy sama problème waaw. la muy fekk ci Modou Lo te Modou Lo du ko nuy alañ alañee waaw loolu Balla Gaye rek la jik xaw ma nag nu mu koy def ba ba di ko def noonu mu koy def rek mais xam naa ne moom ñi koy attaqué ñëpp gis nga mu leen di def ak noo mën a toll boo am na waaw ay feemam yi muy def moo tax combat bii di yomba de du yomba ci Ama Baldé loolu moom bu yeboo mu xam ko. ci côté Modou Lo nag. waaw Modou a naagu rek bu mu naagu lool te xam ne kii muy bëreel nii ah, dugg na gu nuy gu nuy gu nuy caxañ-caxañ ñe de waaw am na lu mu gëm bal Baldé am na lu mu gëm te loolu mu ngi koy imposer te loolu moom na moytu moom mu imposer ko moom Modou Lo waaw bu ko imposer rek mën naa am lu ko metti hmm. euh, su ma ñëwee ci rëgg ak guy gi parce que nekk na combat boo xam te ni combat bu bay coow la avant muy taxaw ak lu ne lu ne lu ne dégg nañ ko ci su ma ñëwee ci combat boobu lan nga may wax. guy gi gi day daanu rek day tëdd rek. nay daanu. parce que bëri bi nekk ci Reug Reug nekkul ci guy gi. waaw guy euh, Reug Reug c'est dafa pare. Reug Reug boo ko fekkee fu muy yi pare moom jugul pour guy gi. parewul sax pour guy gi. waaw parce que booy bi li muy entraîner yow man dama koy xool ba mu yàgg ma ne ko booy yow xanaa da ngay xaru. parce que tellement booy bi dafa am lu mu gëm. te loolu noonu. da wax te da ngay jëf. ni mu koy waxee noonu la koy jëfee. dina yomb ci guy gi parce que guy gi ku ko xam xam ne dafa am détermination bu ñëwee ne lii laay def euh, nit mënu ci dara wala boog bu ci nit dee mën daal dina metti lool lool lool lool ci yow te combat bi li ko ko tax a jël bokk na ci waxu nit ñi wala boog daf ko ragal da koo nangam da koo nangam ba mu fépp jëlal ko boppam est-ce que ni nga ko waxee noonu wala ni ngeen ko yaakaaree noonu est-ce que dina yombee noonu. du yombee noonu. parce que rëg-rëg wax naa ko ko naa ko guy gi. bu leen ko gis nii rek parce que ñi mu juumloo ñëpp comme li ngay wax nii loolu loolu lañ doon wax muñ ko fa fekkee dinañ ko def nangam ko mel ni Ama Balde mu fi dajee guy gi loolu la loolu demee woon rek parce que daanaka ja signature contrat ba mu yaakaar ne li am foofu mooy am fii mu ñëw gis leneen looloo ko jaaxal mu jële ci jële bu rëy rëg-rëg nag moom war naa xam loolu war naa xam loolu bu baax xam ne kii muy bëreel mën naa juumloo ku ne moo tax combat bi nee naa ko bu ko xeeb jël ko au sérieux loo doon def benn yokkal yokkal ba mu mat diis parce que guy gi fu kenn foogewul rek lay génne doonte bëre ba bariwul waaw moo tax ma ne ko jëlal combat bi au sérieux parce que guy gi tey toujours fa ngay fële mën naa bañ a feeñ foofu waaw kooku mooy guy gi. su ma ñëwee ci Eumeu Sène ak euh, Lac de Guiers 2 Lac jóge ci ay série de victoire Eumeu Sène euh, nekk fi roi des arènes Modou Lo daan ko mu jóge fa ñoom ñaar seen combat dafa taxaw rek coow li tàmbali laale na ñaaroon bi mooy troisième fois bi yaakaar xanaa mooy nekk tàqalikoo bi. waaw combat boobu man su ma doon Lac de Guiers man maay wane li tax Eumeu Sène mii ne waa Eumeu Sène mii li ma yebee lan la. <laughs> su ma doon Lac man. dama naan man Eumeu Sène mii lu mu ma yabe ba ba saabu njëkk nañ ko ko fee jox seen combat bu njëkk ba koroog yuuxu yi ak tàccu yi ci Eumeu Sène la ëppe donte victoire amul deuxième combat bi arbitre sifflé a Sène na coppe tànk bu dëcc mu toog waa léegi loolu bu doon man man man maay jëlal sama bopp combat bi au sérieux ne kii fu mu taxaw dinaa ko fa fekk dinaa ko duma dinaa ko daan comme Khadim Ndiaye Sall waaw man boo ma daanee daanaat ma troisième fois ba man may jëlal sama bopp kombaa bi. lak de Guiers du ku ñuy conseiller ti naakaan ama seen lii wala ama seen lële moom moo war a jël décision boppam moom ne ama seen mii tey dinaa bëreeg moom dinaa ko duma dinaa ko daan tant que attaqué wul ama seen jàpp bëreeg moom li mu bëgg ci moom du ko am. mais bul fàtte ne ama seen daan na ko ñaari yoon. waaye Eumeu Sène tam ci defet ba mu jógee suur na loolu mu jotoon a def lépp. waaw moom bu xool yooyu yëpp bu doon may Lac deger man duma xool loolu yëpp jugeel ci sans defet man li li nga xamante ni moo amoon suñu diggante loolu laay rek jéem a réparé waaw. Eumeu Sène nag xam naa ne du ko mayaat loolu lamu mu ñam mu neex moom du ko bàyyi. waaw xam naa da ka cay da ka delloo rek waaw. Lac de nag moo war a bañ loolu bu arbitre sifflé mu jël ay propre jël décision boppam ne lii laay def mais doo taxaw rek di léewaatoo ñu lay dóor ngay daw ak yéegi saakook yooyu tànk mu ngi ci boppam ak digganteem ak Eumeu Sène li mu bëgg ci moom du ko am waaw moom mooy jël décision boppam ne lii laay def Eumeu seen naka def mu xool bu ko defee yàlla dina ko ci defal ndab mais tant que mu ngi bàyyi xel Eumeu Sène du ko daan lii moom maa la wax li gis ngeen noonu lay demee tant que moo ngi bàyyi xel Eumeu du ko daan euh, bu weesoo loolu nag dama bëgg ñëw ñu waxtaan euh, lan ngay lancer appel ñi nga xamante ni ñooy mbëri parce que fan yi gis nañu xale yu ci bay xaw nañoo découragé parce que mbas mi xamatuñ fuñ jëm man mbër yu bari boo gisee entraîné sax defatuñu ko. entraîné sax defuñu ko ban lancé nga leen ban message nga leen di lancé buñ dellusee see ñun ñu tàggatoo tëj. waa métti rek métti parce que neexul parce que mbër ni may wax rek dafa war yoon ñaari métier làmba rek wóorul làmba du métier dañ ciy dërës ndiku rek boo demee ba yàlla may li ci yenn moo yi. nga xam nga sant ko yàlla jaare noonu ut sa investir li ngay investir dem mais loolu bu amul nag dangay ngay suux sa njaboot suux loolu laay bañal mbër yi nañu dem uti métier moo xamante ni dañ koy teg nii ci wet gi di xëy di wàcc xëy wàcc man te tere nga dem entrainement man damay xëy damay wàcc su ma wàccee laay dem entrainement te kenn ëpp ma doole waaw nañu dem uti métier métier yi bari na fi nañ dem uti métier am na ci ñoo xam ne dem nañ bu dugg ci gaal yi tey ñu ngi nii kenn gisutu leen dem nañ te loolu yëpp ñàkk métier moo koy andi nañ dem uti métier làmba rek du métier ñu ñaan ñaan yàlla nag mbas mii mu jëleen nu ko fi ci nu mu gën a gaawee parce que neexul ñaari at nga toog bëréwoo ñi nga xamante ni làmba rek lan yaakaar ñooñu dof nan waaw ñi yaakaar làmba rek ñooñu dañuy dem bay dugg ci bureau yi di ñaan te as góor warut def loolu waaw danga ko nagu ndaw da ngaa war a daan sa doole dem liggéey jox sa njaboot waaw loolu daal laa leen di digal ñu moytandiku jël kii yi nga xamante ni matuwaay yi nga xam ne moom lañu ñu nguur gi wax ñu jëfandikoo loolu peut-être yàlla dimbali ñu affaire bi jóge fi jërëjëf. gis ngeen euh, message bi am na solo xale yi nañuy am métier ndax métier dafa baax tey jii boo jàppee ci lii bu luy doxul sax lii mën a dox waaye boo jëlee na làmb kese la te xale yi dañoo war fàtte ne dañ ci gis xale yoo xam ne saison bi dina tëj ba tëj duñu am combat ñii saison bi dina tëj ba tëj benn combat la ñu am te benn combat boobu buñ la joxee cent mille kon dem leen uti métier su ngeen amee métier bu leen mën a yëkki seen alal dolli ci dem bu ngeen ndam baax na su ngeen yàlla defee tamit safaan ba ngeen xam ne loolu yàlla dogal soo amoon kàddu yu mujj loo ñuy wax. waaw sant rek di gërëm waa Caaray géej yëpp waa di wax ne ñu ngi ci ba léegi bàyyiwunu waa ñoom ay gor piir lan Caaray géej mag ñi bàyyiwunu jigéen ñi waxi noppi ñu ngi encouragé chaque jour def leen lii def leen lële bu leen découragé bu ñu découragé wul ba léegi yàlla ñoom la waaw di gërëm sama gaay yi ñi nga xamante ni chaque jour ñu ngi fi di ma wéttali ku ci mel ni Ablaye Kebe góor gi ndooy bàyyi maam Ousmane Diop bàyyiwuma kenn bëri caara yi bàyyiwuma kenn yaafa ñëpp maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp bàyyi ma njoon mention spéciale parce que sama doom bàyyi la bàyyi ma njoon ñoo bokk benn bàyyi man ak moom waaw lu ne la ñuy defalante lu ne la may defal maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla jubale ko ak Tahirou moomu na gën a jàppale ma Mandione waaw Tahirou Sarr na ko gën a jàppale parce que lekkul dara bàyyiwuñu waaw Baye Mandione maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp jërëjëf. jërëjëf ñi nii lay demee ci wasaare làmb di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen bët jaajëf kàggu.